yërmandeem ak xéwalaam suturaam yàlla na ko buur bi tabaaraka wa taala wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot yéen a ngi ànd ak seen mbokk seen doom Abdoulaye Ndiaye ci Mouslih TV émission bi ngeen amal mardi yu jot ci waxtu wii tuddee ko li ci réew mi tabaarakallaahu noo ngi leen di jaajëfal bu baax ci waxtaan yi ñu weesu dañuy wax ni képp ku ñeme ku nekk rek dañ laa dee waaye nag lépp loo xamante ni nit ñee ngi koy rafetlu rek ci lu mën a doon rek euh, dañuy wax ne noppi gar mi rek te nit ki lépp lu mu amul ak du ko joxe kon noo ngi ñaan yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp ba lépp lu ñuy waxtaan rek bu dee jariñ yàlla nañ ci jiitu bokk ko fa tabaarakallaahu lépp loo xam ne ñu ngi ko ciy jum rek ngeen jéggal ñu ko te yàlla rek tax tey nag macha allah mbokk yi ñoo ngi bëgg a waxtaan ak yéen loo xamante ni ni xew-xewu jamono la ndax bu ñu ko waxee mooy ku ne xam ne ne ñoo ngi ci jamonoy vacances daanaka vacances jot na waaye buñ ci buñ ci tollee rek dañuy gis ni jur yu bari dañuy sàggan ndax sa doom pour man kii la yàlla jox njaboot bi la yàlla jox dañuy wax ne sàmm nga ci moom te nit ku nekk la ngay sàmm ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina la laaj nan nga sàmme woon say njaboot tey dañoo gis ñu ci bari ci ñun dañuy sàggan wala ci bëri ci ay waajur yoo xam ne tey dañuy sàggan yow da am sa doom vacance jot rek nga profité yóbbu ko wala mu ne damay vacance nga bàyyi ko mu dem vacance te xamuñu ni li ci nekk ci ay risque ci loo xam ne ay fitna la woy jur yu bari bàyyiwuñu ci xel bari na sa doom bu jigéen bu lay forcer naan la yaay dama bëgg a vacances yi sama bàjjen diw wala sama kër nàngam du bàjjenam la nam waaye faram ba mu fa bàyyi woon daaw moom la bëgg a gisanteel ren ka ma fa bàyyi woon daaw la bëgg a gisal ren mu doon loo xam ne lu bari la kon mbokk yi tey li ñu bëgg waxtaan ak yéen rek moom mooy tomb boobu yow mi nga xamante ni yaa ngi bàyyi say doom muy dem vacances war ngaa jéem a gëstu sa doom fi nga koy bàyyi muy dem bu demee ci yan loxo lay ne ndax bu demee am na néeg ba muy fanaan bari na tey koy gàll koy gàll sa doom di ko ko jox ca jamono ba mu fay dem. moom néeg bu baax sax bu muy fanaan amu ko néeg boo xam ne góor ñi ak jigéen ñi daanaka ñooy jaxasoo ci ñàq pexe xamoo ndax kooku bu añee dana reer ndax bu reeree dana ndékk yooyu yépp lu ñu war a bàyyi xel la waaye nag yow da ngay am sa doom jamonoy vacances jot muy mel ne dalay lëjal wala dalay xatal ci kër gi te pourtant bari na ci jigéen yoo xamante ni tey daraay togg mënuñu ko fóot fóot bu jekk sax mënuñu ko ñoom jàpp na ne jàng rek mooy àddina waaye nag jamonoy vacances mën ngaa profité ci sa doom jooju fexe jàngal ko mu xam lan mooy togg ndax sunu bouillon yi moom jigéen ñu bari ci lañ dépendre togg moom nee naa wallaahi lim sagal ci ay jigéen sax bul xam nu mu toll ndax bu amutoon fa tabaarakallah waaye nag nga war a sonn yow woy jur waaye rawatina sa doom bu jigéen nga sonn ci ci jamonoy vacances nga fexe ba mu jàng li nga xamante ne moom mooy togg. waaye jàng li nga xam te moom mooy liggéeyu kër waaye mën a fóot comme nu ñu koy waxee yooyu yëpp lu am importance la mais waroo bàyyi ba vacance jot rek nga bàyyi sa doom waabale leen ca fa ñuy fa ñuy fa ñuy vacance yi danañ fa fekk jur goo xamante ni nii xam nga bu ñu demee ba jur di wax doom naan ko euh, bu ngeen bu ngeen di tëdd si tëj leen bunt yi bu ngeen di tëdd si tëj leen buntu kër gi ngeen tëjaale bunt yi. li waroon am kay mooy waajur wi nga xam ne day xool fan la ay doomam nekk bu ñëpp duggee mu tëj buntu këram mais waajur moom bu dee xaar ay ay doomam di ko tëjal buntu këram wala doomam di doomam di ko tàgg mu naan ko doom demal te ñëw gaaw yàlla na soo yoon neex kooku naru jàmm yooyu yëpp dañ cee war a bàyyi xel mais rawatina jamono yi ñu toll saay bu mësab saay bu jotee rek nga gis fitna yi dafay bari fitna yi dafay bari kon. noonu nga war a sonn ci say doom waaye ba xam bu ñu ba bu ñu vacancé ci yan loxo la ñuy nekk waaye bu ñu demee ci yan condition la ñuy nekk xataa sax yow mi nga xam ne ni sàggan nga ba sa doom jàngaloo ko alxuraan faat faatixatul kitaab munu ci dara waaye na wax dëgg yàlla trois mois yii am na arab bi ba na daara ji nekk ci koñ bi mu ko fa sax mu jàng xam diineem mu tene bu ëllëg yamal xiyaam yi sax mu woyofal sab lay nga ne jàngaloo naa ko sax diine waaye déedéet jàpp na ne ni moom njàngum tubaab moom ku ko jàngul ci réew mi rek perte nga ñàkk nga comme nañu koy waxee te loolu nag woy jur yi war nañ cee bàyyi xel yar seeni doom ba bu vacances jotee seen doom yi dañu nangu toog ci seen wet waaye yow mi nga xam ne nag yaay xale bu góor bi nga xam ne dangaa toll ci jàng moo xam dëkk ba dëkk ba dëkk ba nga nekk nga la waay bu école tëjee demal nga dimbali sa baay ca tool muy dëgg na waaye nekk fii ndakaaru defoo fi lenn lu lu caaxaani ngi foofu yaakaar ni soirée soirée war nga faa teg sa tànk place place nga faa teg sa tànk te wallaahi gis nga jamonoy vacances boo demee ci géej gi man da ngay waaru da nga naan nit ñi lan moo leen lëjal ci seen kër dañ fay fees dell ci góor ak jigéen di pëccëxoo di sangu rek di pëccëxoo di sangu rek te mu nekk loo xam ne tey lu doy waar la dara yóbbu leen fa lu caaxaane ki foo dong mu leen fa yóbbu waaye yow mii nga xam te ne yaa am sa doom yow mii di woy jur fexeel ba jamono yi vacances nga fexe vee say doom nga fexe xam sa doom ci lépp lu muy dugg nga xam ko ci lépp lu muy génn nga xam ko bul jël say doom rek waaba leen yóbbu leen vacances bu njëkk nag mag ña daan nañ jël seeni doom yóbbu ko vacances waaye nag ci réewum Euh, dëkk ba la daan doon dangay jël sa doom yóbbu ko fa mu nekk fay bay wala mu nekk fa tabaarakallaahu ngir xam ay maamam ngir xam cosaanam ngir amaat yaru yaru démb waaye tey nag li xew ci jamono tey jële kenn xamul la mu doon góor ñi dëgër nañu fit jigéen ñi wow nañu bët ci jamono googu lañu toll ba ñu ba ñu tollee ci yaay bañ maay nangu ci la dëkk bi yàqu te loolu nag kenn jiitu ci woy jur yi moo tax xoolal gis nga léegi ni ngay waxatee ndeysaan diggante way jur yi ak way way jur yi ak seeni doom bu njëkk sax da gis way jur bu doomam gisee mbaax rek mu tiital ko ne ko gis nga nag gis nga ni nga gisee mbaax bu la góor tegee loxo rek ëmb nga maanaam sama jenn yaay ju baax nee na damaa wax ak sama sama sama doom mu gis mbaax ma ne ko gis nga nag bu lay góor di teg loxo ngay ëmb mu naan ko yaay ma jàng Ecofam xaw ma Ecofam nañ koy xaw ma ngeen baal ma ci ci kii bi jàng naa li may jàng ba pare. pour lan école bi ñuy yóbbu gone war koo jàngal pour pour pour yar ko ñooñu ñooy dem xamal xale yi loo xamante ni day tax ñu am fit def naka sulu noonu dañuy wax ne bu njëkk da nga daan nekk ci kër ñëpp daan yar. moo tax ndeysaan Fallou Kane waxoon ni bu njëkk bàjjan da daan la jël wéet ak yow ba ngay sëyi xamal la néegu sëy ak li tax nga koy téye bàjjan da daan la jël wéet ak ba ngay sëyi xamal néegu sëy ak li tax nga koy téye moo waxoon ne laabaan da daan na tax jànq fonk ak sëram tamay fajar ya dal ñëpp xam ne jànk nga laabaan da daan na tax jànk du dégg aw xasam bàjjan di koy woyal naan ko doon de wàcc nga yàqoo sa toq si ñëpp xam ne jànk nga kon lan moo tax bañ ay nangu ay tubaab dëkkee ñu nax andil ñu ay naxam sàtteloonu lan yoroon mbokk yi képp kuy waajur walla képp koo xam ne yarkat nga rek na bàyyi xel bu baax ci say doom na nga bàyyi xel bu baax ci say doom te xam ne ëllëg yowmal xiyaam dinga nga kont compte kenn ci ñun bu jéggi siraat lu dul nii la mu warloog ak ay njabootam yàlla dina leen àtte audité leen ba mu leer kon nag sagam fii nga nekk tatal ko balaa ngaa dem kon fexeel ba li la war say diggante ak say njaboot nga def ko balaa bëy di weesu mbuus kon mbokk yi li lañ leen andiloon fa tabaarakallaahu tuddee ko li ci vacances yi lépp lu ci jub rek ci yàlla la te loolu rek mooy li ñu tax a jóg waaye lépp loo xam ne ni ci kàddu bu ëpp la wala bu safaanu ci dëggate ñoo ngi leen di jéggulu di jéggulu yàlla wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu